Euh, passe partout maa ngi lay ziar noo def. jaajëf sama waa ji maa ngi lay delloo ziar baa lépp jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax coono yi. waaw ñu ngi nii ànd moom di daw rek. naka waa kër ga. waa kër ga nga fa di la nuyu. koñ ba. ñu ngi fa di la nuyu. maire ngi lay nuyu. paa yi. maire syndicat yi boo ban ziar. monsieur le maire. ngi lay ziar bu baax. naka coono yi euh, di sant bu baax ñu ngi lay ziar di ziar passeport Ndiaye xaw ma ana moom moom. Ndiaye sama sama xaritu benn. fa génn ah waaw a nañ nag. tey de la presse tey. <laughs> ah revue de presse tey Ndiaye de la presse. man ah, maa jékki-jékki rek dégg affaire yi waaw baax na. <laughs> am na ku ma woori naan ma am na ma woor naan waaye yéen euh, baan ngeen yaakaar ne ni yéen est-ce que yéen yéen ko war a revue ma ne ko li naa li bind. waaw ah. la Ndiaye revue. te kuy xalam. di ca jaay. barke ba lo loolu loolu rëy bi de maa ko wax moom. dëgg la maa maa ko wax de. dëgg la de waaw loolu mu wax. en tout cas daal maa ko wax. dëgg moom boo ko bëggee dégg. nu ngi sa kanam. waaw nu ngi sa ginnaaw. waaw nu ngi ci wet yi. nu ngi ci kaw. nu ngi ci suuf. yàlla nag mooy maye. yàllaay maye. waaw boo doxee ba mu sori. waaw boo gëstoo. xool ñu te xam ne ñu ngi sa ginnaaw. waaw boo nu jiitoo. xaar ñu. ñu ñëw eh, eh, eh. <laughs> yàlla jàmm yàgg. amiin jaajëf yàlla na yàlla defal la ay tawfiix yu bare bare bare. amin amin amin amiin jaajëf waaye jaajëf ñu ngi ñaanal yëpp jàmm rek. Mm. waaw ñu daal di song affaire ndax heure bi heure bi heure bi mu euh, doy na waar. Babs dañoo cofale maa ngi lay dégg sànq ngay wax lu am solo. waaw nañ bàyyi sponsor yi jeex. waaw ñu baleen ngeen yeggali programme bi. ñu bañ a xalaas. waaw soo moytul nag ci loolu lañ jëm. sànq dégg naa la nga wax fi Aliou ba ne la euh, kaay jàppati rek nga def ko xam naa ne boo jàppee tey bu subaa doo ci jàpp. waxoon nañ ma mm. ci suuf. Mm. waxu suuf lañ ma waxoon di kaas heure xalaas bi mm. en soo paree émission ñu waxtaane ko. loolu waxoon nañ ma ko ko faj waaye nag loolu ginnaaw li may. loolu du ko faj ginnaaw fajuwul laa koy. kaas cinq minutes sa waay bañ a xalaas ko gën. voilà paas waaw ana xalaas bi. dañuy songu affaire yi. Mm-hmm. dugg ndar. Euh, booy. am na lu xew ndar loo xam ne. Mhm. benn femme bu fa nekk di sëy ak benn militaire. Mhm. femme boobu suñu ko jàppalewul. Mhm. fekki fan suñu déggee ku jigéen ko xaru ndar. bu mu leen bett. ndax la abaa. gis nga femme bii. gis nga ko. waaw ah. yaramu neen la def fii. Ah. dafa ëmb. doon ko yónnee jëkkëram ay jamono. jëkkër ji fa nekkoon ci àll ba gis nga ko nii. ci li ma wax ak li ma ay mbokkam wax jëkkëram la ko doon yónnee. Hmm. jëkkëram moo jël numéro télé numéro téléphone dugg ci biir Facebook am. Hmm. modifier mot de passe bi di publier photo yi ndax ndaw si da koo ñaan baat. Hmm? coow laa nga nu kur kur kur kur ca ndar ndaw si ci boppam. aba mooy ñëw nekk di expliquer nii nee na photo yii moom laa ko doon yónnee te bi ma ko yónnee maa ngi ëmb taawam. bi mu ko ko yónnee defe naa yàgg na sax léegi nag ci ay problème ñu am ay problème ay lii lii mu commencé ba pare di ko ku ko woo téléphone di ko ñaaw njekk mën ko sama faru jab jabar nga hmm? imaam yaag ñëpp te gii def loolu ab militaire la mi ngi sous le jamono jii hmm? ndaw si porte na dem na fa mu war a dem fi ñuy war a porter plainte militaire et tout dara may lancer appel autorité ndari ak hmm? autorité militaire yi ñu jóg taxaw ci lii waa ji defe naa Kaolack la nekk. Mhm. militaire la suñ ci jógul bis bu ñu dégg bis bu ndaw si deewee ñooy responsable. femme bi rek moo wax wala femme moo wax. waa ji nag waa ji waxagul waa ji militaire la du wax. nañ déglu déglu. man de jigéen laa ndar laa dëkk damay sëy benn militaire bi may sëy moom 2013 nanu am papier de mariage ñuy ànd di ànd mu xëy suba rek di ma ji njaaloo bu xëy suba dama jigéen bi àndoon dooy baan chaque jour su ma waxee ak moom mu may menacé waxee moom mu may menacé mu ñëw fii woo ma téléphone en 2017 ma génn di ko wuyu mu ne ma yow de yow da ngay njaaloo ma ne ko man ma njaaloo mu ma enregistré yaa ngi doon wax waa ji ba nga demee kër waa ji bunt bi ni kiit nga naan def ma loolu waa ji di nii lay doxee. man tayuma ka waaye man maa la enregistré man ko yow man généralisé enregistré naa siire su yeboo nga ji ma njaaru te ji ma njaaru ëllëg man sama waa kër doy man ma seede sama waa quartier doy man ma seede ndoy baan mu quitté foofu ñëw ay mbokkam ak ay xaritam arrangé mu ñëw ba mu ñëwee 2017 dem màggal Touba dellu si ñëw fekk si kër est-ce que tu es prêt pour mu recevoir ma ne ko benn problème sëy daal sëy la réeréer na réeroon fi ñëwee mu xeex ak man suñu biir kër commencé naan ma déglul ñu ngi fa fekk sama ay nit ay magum jëm ci biir kër gi moom ma déglu enregistrement bi ma la enregistré déglu déglu bunt bi déglu déglu li nga wax waa ji déglu ma ne ko yii nga may wax man xaw ma lu mu doon. yow ay enregistrement yow nan laay mën a nekk yow nga may enregistré ba pare yow bëgg si dégg li nga si bëgg dégg yow defe naa moom su ma doon yàlla wala may mooy yàlla yàlla seede na ne du yow yow yaa koy su ma doon mooy yàlla nekk ak beneen góor di décourager sama téléphone ngir yàlla bàyyi njaaloo yi ni may ji man sonn naa ci bi ñu toppante ka toppante ka ba mu xeexal man suñu biir kër gaañ ma fi sama ay nijaay ñëpp jàpp ci ba ñëpp ñu doy na bu facebook ni moo fasaku jabar nit ñi ni mag bàyyi ko kii baaxul bàyyi ko kii baaxul daf lay indi loo xam ni bu ëllëgee kii daan la rey man leen ah garaawul comme daal jigéen dañ ma ñun doom da sëy moo nuy rey nan ma bàyyi rek ma sëy te yàlla te xëy na dina change daa ma xëy suba dem fekk ko Kolda ñu ñu dundaat un un bon harmonie bi na après ma jóge Kolda ñibbisi autant pour moi après ma jóge Kolda ñibbisi moo romb mujj gi ñëpp bàyyi maag moom su may wax ak moom téléphone damay daw su déggee oto ni ma yaa ngi si biir oto ay façon jalousie boo xam ne démesuré ba nga xam ne man mënatuma ko mënatuma ko mënatuma ko natable su may liggéey mënuma filmer fi nga nekk góor ñaa ni noonu di wax dugg ci yenn yi moo tax bàyyi ma ma liggéey trente mille na may fay waaye trente millions am na lu mu mën a mottali sama dépense parce que yow moom li nga may su ma dafay école xale beeg yooyu li si des mooy loolu ma liggéey daan sama doole moom gën mënu ma liggéey bi da nga koy bàyyi nit ñi nax naxal nax naxal boobu na ma dee lu nga liggéey mission intérieure maa ngi Casamance fi ma nekk su ma demee PO xaw ma CO du ma am réseau ma ne ko effectivement ma ne ko wante gaynde man sama boob bi day metti mun ma waa maa ngi àll ba tey nga wax ak ma ma ne ko maa ngi wax ak yow de maa ngi wax ak yow mun ma ah loolu dimboo lan la man ko la temps yi sama néeg yaay dama ko daaneel di ko defar sama nijaay daf ma jox nekk si kaw kër gi ñu jàkkaar kër gi ñu jël loolu moo am xaj bu fa nekk xam naa ne ñu élevé ay xar moo tax xaj bi moom mooy yóbbu noonu mun ma ah ndekete boobu nee na commencé waat na dima enregistré man dama sonn sama boobu bi day métti ma nekk sama boobu day ma woo ko comme habitude bi ma am di ko woo nekk nan nga defar naka journée bi ndax peut être génn nga PO ak yooyu ma yow. dinaa fi yow dinaa dagg fu gën a bon man kay bàyyi di wax ak dima saaga ay ndey ñëpp ne nañ maa la yar si saaga yi dinaa publier sa ay photo sur sur sur Facebook ak sur WhatsApp man kay yow defal lu la neex loo deful si yow daal di kay faf man wuyootuma ko téléphone ma xëy suba woo ko ñu xëy suba ak sama xarit di France fu nekk ku nekk di ma wax yow lan nga xewle lan nga xewle ba jël sa awral neen yi di ko publier ci sa numéro 521 man leen numéro 521 bi ma jëkkër moo ko nangu jël ko ni moom moo ko moom ba ma demee Sonatel Sonatel ni ma carrément sa tur nekk sa turam mos na ndax numéro bi moom moo ko identifié ma ne ko effectivement dëkk la numéro ci sa carte d'identité comme ñun man ak yow benn la identifié ma mu defal ma ko bi bi bi ma nit ñi waxee ni ma yow kii de mi ngi publier sa ay photo ni ma leen ko woon kii kaful mu daan ni envoyé ma message avant ma koy bloqué

ndaw si bi mu koy envoyé photo yi boobu waa jàng ca àll ba. nekk militaire di liggéey liggéeyam. xam naa mu gëj a gis jabaram ak yooyu seen xam nga sëy ba neex rek. Mm. sëy ba neex rek. bu ñu am xale yu oyof bopp. waaw sëy ba relation la ñu yemale. waaw bu neexee loo leen laaj dañ koy def. waaw jigéen war naa éviter sëy agrelation ci envoyé ay photo on sait jamais. wóorul muy jigéen muy góor. Mm. envoyé ay photo wóorul c'est que bu neexee situation bi suba mën naa ëlbatiku ba naqari te xamoo ku am rancune ak ku ko amul. xamoo kuy venger wu ak ku ko ko dul def. na ci autorité yi jóg xamoo ko. ndaw si lépp lu ko dal waaw. lépp lu ko dal fii fan nañ bàyyi nopp ndar. mais femme bi rek moo waxagum de. waaw moo waxagum moo wax mais tey jii abaa amoo droit jël sa code code Facebook jabar. di ci wax ak ay nit ak di ci publier ak di ci saga nit manque de confiance la voilà ñaar yi ñaar yi du ko seyal ak nit mm. duma ñak confiance ci yow wala ma lay contrôler de de de de ba yenn contrôle yu metti ba paré mm. di connu di seyal yow duma ko def déglu bu confiance amul rek da ngay dem ba dem mm-hmm. dinaa la woo jigéen bu mooy yàlla nu muy mel man ko yow man mi nga amal ñaari doom ngay publier si sur WhatsApp ku nekk commencé di ma yow la nga ki lan nga xewle parce que man leen du man numéro bi moom moo ko nangu si man day déglu sama ay far moom moo nangu numéro bi ne day déglu sama ay fan numéro bi ba mu ko nangoog léegi ça fait quatre ans boobu moom ma ko sa awra lii lan moo ko jël ah, kii lu nekk mu def la que ni yow daal du génn si dama lay weer dama lay taal nag ay photo nii publié ko sur whatsapp jël sama photo nii publié ko sur whatsapp wax ji ma ku nekk fu nekk lu jóge fi di ko ma leen man de foogoon naa ne de du ko def waaye def na ko am na àtte. yaa ngi dégg Ndoye Bane man leen benn moom ñëw na 2017 suñu kër diw de njaaloo la ma jiñ waaye dinaa ko def golo dinaa ko jigéen ju ñu jiñ njaaloo noonu lay mel waaw dinaa ko def lu kenn dul wax dinaa ko def golo dinaa nekk jigéen ju ñu njaaloo noonu lay mel lu nekk ma waxante ak samay xarit yi Ndoye Bane yàlla ma suturaal mosuma si wax sama xarit bu jigéen ñi rek laay audio ku ñu jiñ njaaloo nga nekk sa famille boo xam ne loolu su si am nga nekk ndaw. yàlla nag tool la ñaari doom nga xëy suba benn waaye gis la bëgg la da nga naan damay sëy te yàlla tax parce que maa ngi jëm mag ba si avant koor gi rek mu def noonu duggal sama ay photo taatu neen envoyé ko ay classe militaire envoyé ko sama ay xarit individuellement envoyé ku nekk ndar di wàcc boobu ba tey nag maa ngi lay xam ne Ndoye Bane am wàccaam ndax lii su ma toogee di ko wax si audio Ndoye Bane du pare su ma toogee di ko wax si audio du ko toogee di ko wax si audio du pare. boobu ba léegi aw ma jàmm fan yi ma toogati avant màggal Tuuba mu doorati kenn xamul loo màggal di wax ci Facebook bi di wax ci Facebook bi naan naa ngi nii di wax diw ku nekk ku nekk mun la diw moo ma envoyé lii ku nekk lii mu ne ma waaw dama la wax nga ñaan ma baat ni ma naa la naa la fase mayu ma la baat de waaye bu fekkee na nga nangu ni da ngay nangu baat bi détruire au sein de ton quartier au sein de ta famille au sein de tout le monde nous la détruire xam fan may yow par force avec un inspecteur de la sécurité militaire mu entendre ma assistance sociale bi entendre ma entendre

yaangi ngi nit ñi ku ko ñaan njëkk mu la tay bàyyi naa suba mu la tay nag ndoy baan samedi bi moom dafay yées sama day dugal photo bay dugal photo boo xam maa ngi ëmb doomam sunu taaw bu mu tuddee maam jaara bu su naa ngi ko ëmb mu dugal ma sama taatu neen ak sama weeru neen te maa ngi ëmb doomam ba am huit mois mu dugal photo taatu neen yooyu bat di toj ku nekk naa ma lay see jëre ko man leen man ñaan naa ko baat géej mu doo ko may may baat waaye may baat day yomb léegi ñeneen ñi rek mu may ma baat day yomb dooy ban jàpp ay jàmbur leen si tudd jël seen ay photo jabar leen wax waxu ñaaw yoo xam ne rafetlu wu mu ko doomu ndar laa dama yar dama toog naan lii ak lii ak lii ak li jaar sa digg ba kon nag sonn naa ndimbal laay chef de quartier jóg na di ma dimbali avec les autorités de ville Saint-Louis ñoom ñëpp jóg nañu jëm nga dimbali mais amul aboutissement def naa plainte au niveau du commissariat central ñu ngi daan wax ak cybercriminel wallaahi cybercriminalité ñoom ñoo ngi si waaye amul aboutissement compte bi kenn tëju ko. mais loo koy jël cybercriminalité. Hmm. ñi koy suivre. Hmm. di gis compte bi nañ ko signalé. nañ ko Facebook tëj ko. ok non non ci boppam. waaw dafa war a wuy ji. expliquer li mi def lan la justice militaire dafa am waaw ah, commandant ah, wan lu tax ñu arrêté ko fam bi rek mo wax de non non fam bi ah, waa ji waxagul waa du fi du xalaat lay waxe waa day dem dañ baan man neew ma hmm. bi limu wax amna wala amul mais dama ni fam bi rek mo waxagum dama ni j'interpelle le commandant wan hmm. man suma ma nako naa autorité militaire yi nga xam ne ñoo war a lijjanti lii hmm. su ma génne naa leen contacter dinaa leen yónnee li femme bi wax yónnee leen photo yi yónnee leen numéro waa ji turu waa ji camp ba mu ne na ay fanam fële ca ndar bu mu leen bett émission bi pour alerter la waaw ah, mais yow ni ngay alerter yow waaw eh, mais da ngay alerter di encourager femme bi pour. déedéet encourager dama ne nañu woo waa ji. li dañ ko war a entendre waa dañ ko war a déglu.